Sadio dëgg la bi mu doon jógee ci match contre euh, Cap-Vert bi dafa amoon ay tolof tolof waaye waxtaan naa ak euh, depuis depuis lundi euh, commencé na daw commencé à entraîner individuellement am que filé que filé match bi dans trois semaines dina dina manière jouer ben match foofu avec avec Liverpool pour manière a ñëw ak équipe nationale donc euh, waxtan bi am ak mom moy que mom pare na pour euh, pour ñeu défendre couleur nationale yi donc pour man amul ben hésitation tant que mi ngi mi ngi commencer ay entraînement individuellement que semaine prochaine mën na commencé laal bi xëy sax bokk groupe bi groupe de performance bu Liverpool donc ci ñaari match yi foog naa ni que Sadio war na mën nek war na mën a nañ ko mën sélectionner donc lolu motax tax ma sélectionné ko